alayhi salaatu wasalaam ngi koy nettali fii ma yar wi an an rabbihi wa anillaahi bi waxoon ne démb yéen sama jaam yi dama araamal tooñ ci sama bopp araamal ko seen diggante kon bu leen tooñante daani yéen sama jaam yéen ñépp a sànk lu dul ku ma jubal sàkku leen ci man ma jubal leen su ko defee ma jubal leen yéen sama jaam yi yéen ñépp xiif lu dul ku ma jox nga lekk kon sàkku leen ma jox leen lekk ma jox leen lekk mbokk yi ñetti pàcc nun bi ko ñeenteel mu ne yaa ibaadi kullukum aar illa man kasawtu fastaksuuni aksikum yéen sama jaam yi yéen ñëpp a rafle lu dul ko ma woddu yéen lu dul ko woddu sàkku leen ci man ma woddu leen ma woddu leen waaw allahu akbar yàlla ngi jàngal pinc mi ay tomb yoo xam ne bu ci nekk jaroon na def atelier taxaw ca waaw yéen ñëpp rafle ku mu joxul yére doo sol kon nag sàkku leen ci man ma jox leen yére hmm? waaw waaw mu ne yaa ibaadi innakum tuxtiuuna bil leyli wa nahaar yéen a ngi tooñ bëccëg yéen a ngi tooñ guddi di tooñ bëccëg waaw yéen a ngi may tooñ guddi maanaam yéen a ngi bàkkaar guddi di bàkkaar bëccëg yi da nga koy def mu ne wa ana axfiru dunub jamian bàkkaar yépp lay jëggale fastaxfiruuni axfir lakum allahu akbar jéggalu leen ma ma jéggal leen jéggalu leen ma ma jéggal leen yéen ñépp ay bàkkaar guddeeg bëccëg innakum hmm? waaw bàkkaar ya nag mën naa ñàkk a tolloo mu ne yéen bàkkaar guddi di bàkkaar bëccëg mu ne waaw mu ne man nag bàkkaar yépp lay jéggale xam nga foofu mu ngi nuy wan ne mooy sunu boroom teyit mooy sunu borom buñ ko nangoo noppalu déglu ko ci yii topp ci ndigalam waaw kottu kottu yollu yollu waaw yaa ibaadi innakum lan tabluqu durri fa tadurruni mu ne yéen sama jaam yu tuuti yéen sama jaam yi tuuti ngeen ci lor ma ba di ma lor mënu leen maa lor ah? su ngeen gerawoon julli geraw koor geraw asaka bàyyi yépp loolu daf ma dul wàññi dara dara dara waaw maanaam lu ñuy defal yàlla loo xam ne buñ ko ko defalul du baax ci moom looloo amut looloo amut moo tax sunu doyen xaaji Moustapha Guèye yàlla na yàlla yokk ko wér mooy wax ne nit day génn àdduna téléphone am continuer fonctionner nga woote ca télé ca téléphone ba téléphone bi wuyu la te du la wax ni diw daa faatu nee na montre bi nga yor du taxaw montre bi nga yor dix-neuf heures dafa jot nga faatu moom dana dox ba di heures continuer vingt une heures vingt trois heures jëm kaw montre bi du yëg ni dangaa faatu nit jël ko takk mu continuer dox ak moom àdduna yi noonu la di waaw àdduna yi noonu la remplaçant yaa ngi fi taxaw nit ku faatu ba nit ñi jàpp ne ku ni mel dootul am sunu borom ne ah maanaam sax min ayatin aw nun siha ah, aw nun siha nati biha aw mithliha aw kama xaala lépp loo xam ne maanaam sax min ayatin aay yoo xam ne ko fi génne wala nu abrese ko danañ indi jeneen laay yoo xam ne jii ni moom lay mel mbaa mu dàq ko gën ko woyof inakum lan tabluqu durri fa tadurruuni walan tabluqu nafci fa tanfauni tuuti ngeen ci jariñ ma tuuti ngeen ci lor ma tuuti ngeen ci jariñ ma mënu leen maa lor mënu leen maa jariñ ah maa la ko wax de mënu leen maa lor mënu leen maa jariñ seetetet yaa ibaadi yaa law anna awwalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanu ala atqa qalbi rajulin waxid minkum maa zaada dalika fi mulki shay'a ci mu ne yéen sama jaam yi la tàmbalee ca aadama ñama njëkk a bind ba ci kii ñiy mujj ñiy mujj bindu ñu faatu bu ngeen boolewoon nit ñëpp ak jinné yépp ngeen jël kooku ngeen seet ki gëna ragal yàlla ci yéen ngeen boole seen xol yépp mu mel ni xolu waa jooju nekk benn loola du yokk ci sama nguur gi dara hmm, waaw waaw nit ñeeg jinne yi ñam njëkk bind ba ñu mujj a bind nga xam ne boo dee seet àdduna tey nangami milliards yi li ñu wax ñoo fi nekk mu ne bu ngeen àndoon yéen ñëpp def formation ba jël xolu ki gën a ragal yàlla ci yéen ngeen jël xol boobu yéen ñëpp ngeen mel noonu yéen ñépp ngeen mel noonu nga xam ne kenn du ma tooñ kenn du weddi sama ndigal waaw kenn du def samay bàkk samay tere nee na loola du yokk ci sama nguur gi shay a tus allahu akbar yaa ibadi mu waxaat ko law anna awwalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanu ala afjari qalbi rajulin waxid minkum ma naqada dalika min mulki shay'a ñu njëkk ñu njëkk ci yéen ba ñu mujj ci yéen nit ñi jinne yi bu ngeen amoon xolu ki gën a kàccoor ci yéen yéen ñépp ngeen am xol boobu di ma tooñ guddi di ma tooñ bëccëg di ma mooy guddi di ma mooy bëccëg loolu du wàññi sama ngóor gi tus allahu akbar waaw <laughs> du wàññi sama ngóor gi tus yaa ibaadi lu xewati law anna awwalakum wa aaxirakum wa insakum wa jinnakum qaamu fi saidin waaxid fa saaluunii fa ata fa ataytu kulla insaanin masalata maa naqda dalika mimma indi illa kama yanqusu almixyat ida udxila albaxr allahu na ñi ma njëkk a bind yéen sama jaam yi ñi ma njëkk a bind ci yéen ba ca ma mujj bind ba ca ma mujj bind waaw jinne yépp ak nit ñépp bu ñu taxawoon ci benn benn terrain ñoom ñépp taxaw ci benn terrain ku ne laaj ma ma jox la lang ma laaj ku ne laaj ma ma jox la lang ma laaj danaa leen jox jox ba yéen ñépp ku ne ma jox ko lam laaj te loolu du wàññi ci li ne ci man lu dut boo dugaloon puso ci ca géej ga seppi puso ba lay taq ci ndox ci puso ba lu tol noona sax du wàññiku ci li ma yor yaa bëri le yaa xoolal rek boo jëloon Sénégal rek amul kenn ci réew mi ku mën a faj suñuy soxla nun ñëpp mukk moom nag waxuma la réew mi waxuma la continent bi waxuma la àdduna waaye ñafaatu woon bu njëkk ba fii nu toog ñëpp buñ àndoon taxaw ci benn terrain ñee laaj ko oto mu jox leen ñee laaj ko terrain mu jox leen ñee laaj ko portable mu jox leen ñee laaj ko xaalis mu jox leen ñee ko yére mu jox leen ñee laaj ko ndox ñii suukar ñii kafe ndaw ku ndaay laaj ko ceeb mu jox leen ñépp lay jox nee na ba ñépp am ba ku ne la nga doon laaj nga am te nee na lool du wàññi ci lim yor lu li puso di wàññi ca ndox ma ca géej ga boo ko ci sëppee seetetetet allahu akbar jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yaa bërile te doo moroom moom kenn hmm? waaw waaw yaa ibaadi yaa ibaadi innama hiya amalukum ahsiha aw uxsiha lakum mu ne yi ma fax yépp nag lu ngeen ci yëf seen bopp nga ngeen ko jëfal man dama koy konte rek bu dee tooñ waaw bu dee tooñ bu dee njub hmm? waaw bu dee bàkkaar waaw bu dee loraange bu dee njariñ waaw bu dee njariñ lu mën a doon ci yii bu dee ragal yàlla bu dee kàccoor bu dee laaj ak laajaat lépp lu ngeen def seeni jëfa yaa ibaadi innama hiya amalukum uxsiha lakum waaw mu ngoog su ko defee bu ngeen ñëwee ma wan leen ko su ngeen ñëwee ma wan leen ko fa man wajada xayran falyaxmidillah ku ñëw ñu wan koo jëfam mu neex ko na sant yàlla ku ñëw ñu wan koo jëfam neexu ko falaa yalu man na illa nafsa bu yedd kenn ko dul boppam mbokk yi foofu la imaam Nawawi tëje buntu al mujahada muy buntu kër kër yi waaw ku kër kër yi rek yàlla jàppale la loolu la fal lu tontu woon ka ne ko woon amaguma kër te dama bëgg kër mu ne ko mën nga koo bind ndeysaan dafa ñëw Serigne Fallou Mbàkke am na ko Mbàkke man de amaguma kër te dama waaw bëri na ci moroom nag waaye mu ne ko mën ngaa bind kër mu ne ko waaw mu ne ko bind ko waa ji bind kër mu ne ko jàng ko ñeenti yoon waa ji ne kër kër kër kër kër mu ne ko ba dëkkut lee nga am kër <laughs> allahu bu dëkkut kër kër daal bu dëkkut lee nga am kër kër kër yi tax am kër kon mujaahada muy kër kër yi ci penc mi dégg ngeen li fi fi imaam Nawawi jaar te bëgguñ cee defal formation pour ñu bokk ca saalixuuna ya muy man mii di wax ak yéen ñi di déglu sunu mbokkum daara oustaz Ahmed Dame Ndiaye yàlla na ko yàlla yokk wér dafa am téereem bu bu bu mu yoree doon ci def émission waaye nee na téere bi yéemul ci di ko jàngale ak di ci former nit ñi mais moom nee na yëg na ne téere bi daf ko defal formation waaw tabarkalla sunu magum sunu mbokkum daara it Cheikh Ahmed Tidiane Gaye moo daan wax ne euh, jàkk suñu abbas yi dafa xamul jàkk jee tabax suñu abbas wala suñu abbas a tabax jàkk ji <laughs> ñu ñu ay jàngalekat la ñoo xam ne la kon bunt bi al imaam rahimahullah ubbi ko ci ubbin wu am solo indi ci ay laaya laltaayale ko ndax bëgg nun ñëpp nu sawar ci kër kër yi waaw wàññi tëdd bi wàññi nelaw yi def sunu énergie bi ci liggéeyal diine ji waaw di ci xëy di ci gont buñ ci xëyit gont ci it sunu borom nee na bëgg naw des bëgg naw des li ñu dese ci temps ñu jéem koo jox diine ji ndax temps yi li nga ci desee bëgg koo tëdd nelaw ko boo ko xamoon doo ko tëdd doo ko nelaw jamono ñu nekk ko benn tubaab dafa mës a ñëw soxla cëggal guy <laughs> benn tubaab daa mës a ñëw kub kub soxla cëggal guy maanaam xàñ ci guy waaye at moom du noppalu guddeeg nit ñaa ngi ci guy waaw di xàñ ci rek ba guy ya set wecc wecc wecc wecc waaw mu ko doon jënd par kilo kilo bu xàñ ci waaw te bëgg na bu tooy bi jeex na takk tey fii ne bu ñu fi amoon usine buy liggéey di di transformer mbuus ñu ne de ku jën ku indi mbuus ñu fay la nangam kenn dutu nelaw boo ko laajee ferrailleurs yi ñoom seen bu sekk yàlla na yàlla yokk leen wér maanaam lu waaye indi ñu jënd ko kenn dutu noppalu kon nag mujaahada mu ngi noonu nit ñaa ngi ci koor gi fi nekk ñi promotion lañ nekke waaw lu ay indi yàlla jël nee na ku ma woon say jëf nga kontaan sant ma ku ma ko won kontaanoo yeddal sa bopp wax na dëgg de yeddal sa bopp ndax fi nekk nii ñi ngi ci ñi ngi ci temps ñi ci temps kenn xamul nag say temps kañ lay jeex déedéet booy seetaan football loolu la lay jàngal booy seetaan football Ablaye Diaw xam na ci dara bu bi ne par nga xool sa montre mu daal di bind seconde dix secondes vingt nangam bu mu yàgg mu def une minute ñu yëg ne quatre-vingt-dix minutes yi benn minute jóg na ci ñu dem ba yàgg ñu àgg quinze minutes ñu xam ne quatre-vingt-dix minutes quinze minutes jóge na ci ñu dem ba mu yàgg ñu xool muy quarante-cinq minutes arbitre bi yokk ci benn minute mbaa ñaar daal ne acc dem leen noppalu ji te ngeen waxtaan deuxième mi-temps bi nu koy songe gaa yi dem ci wis vestiaire yi daal ni diw ni nga def sànq bu ko defati yow diw defal nangam yow di nga def leen diw yow noonu la attaqué leen gaañ yi wala défendre leen wala yéen leen mën a des wax a wax ak daal ba del siwaat ba del siwaat bu ñu del siwaatee léeg-léeg nga gis pomi wuuteeg mu njëkk ma léeg-léeg nga gis ko léeg-léeg ñu xam ne diw war nañ ko remplacer ñu remplacer ko keneen ala kulli xaal dama bëgg a wax ni àdduna si kër kër yi rekk moo fi nekk fexeel ba seytaane bu mu la dóor deux zéro mukk waaw bu mu la dóor deux zéro mukk mbokk yi yàlla na yàlla fayal ñu al imaam Nawawi euh, tabarkal def lépp ci téere jëfam ma ñëw kon ci beneen chapitre professeur muy chapitre douze wala boog baabu douze muy buntu fukkeel ak ñaar bunt bi buntub soññe la baabul xadd buntub soññe la ci yokk saw yiw waaw rawatina fii awaaxiril umru maanaam boo boo xawee mage bunt bi day soñña ci yokk sa yiw boo xawee mage walla nga jëm ci mag waaw waxul ne gone bu mu ko def de déedéet waaye mag mag mag léeg-léeg mu toll foo xam ne fii dañuy dañuy jàpp ne kurus geeg der beeg jàkk jee koy dese rek dama ndeysaan kurus geeg der beeg jàkk ji mag bu tollee foofu ah, dafa am yoo xam ne ah deesu wareesu ko ci séenati mag muy fecc mag muy jëfandikoo aw ñol mag muy jëfandikoo tux mag muy soloo na gone daan soloo waaw mag moo xam ne bon vieux du ko fàtte mukk <laughs> seetaani moo bëgg loolu waaw mu tax sooy fa ba mu yàgg nga bàyyi mu fa seetaan da lay wooxaat ne la kaay nga jubilé hmm? waaw waaw da lay wooxaat mu tax mag ñi léeg-léeg gis ci ko ñee nga xam ne peut-être daa nekkoon ca pom mu jékki-jékki génn ci duutu ko ca siin duutu ca wax du ca defati mhm. nga xam koo xam ne da xëy na daa nekkoon ci ndagar wala yeeg taasu mu jékki-jékki ni ko fa ñukk duutu ko ca siin duutu ko defati waaye léeg-léeg am ñooñ seetaan daf leen cee téye ba ñu màggat ca ba nga xam ne fi ne bu ñu bàyyee poma poma bàyyi leen buñ bayiwul pom it pom yi bàyyi leen ñu door a bàyyi bu baaxut bu baaxut déedéet kon la maam xaaj Alxaaj Malik tontu woon ganam ga nee nañu bàyyi xaadima jaxate kala allazi alallaahi tawakkala ca kër kala waaw bàyyi xaadima jaxate kala allazi alallaahi tawakkala ca kër Makala waaw di benn borom xam-xam ci réew mi bu rëy bu rëy bu jàngal ñu bari te mënoon naxwoog arawut ak bayaan ak yenn xam-xam yi kéemtaan la woon ci xam-xam bàyyi xaadi ma jaxate kala allasi ala lay tawakkala ca kër Makala way nettali ñooy nettali munaasabatul xasida zajurul xulub ndax ñi jàngale littérature arabe danañu ko faral di def waaw léeg-léeg mu jub léeg mën naa ñàkk nekk noonu waaye daal munaasaba lañ ko daan def ndax gone yi dégg lañ leen di jàngal waaw amoon na génn góor gu nekkoon ca rajo London alkarm ñu ko daan laaj ci xasida yi àdduna yi manal xaayil wamal munaasaba waaw góor googu defe naa def na ko ay téere dañ cey jotagut waaye mu ngi ci mu ngi ci bibliothèque yi waaw xam naa ku demoon ca kàggu sëñ Maodo Touré ku dem da ko ca fekk ndax téere yépp a ngoon ci moom mbaa yu baree bari bunt boobu bi ko al imaam di ubbi bëgguñu yokk sunu góor góorlu yokk góorgóorlu def lu baax ci suñ dund gu ci mujjug dund waaw di san waaw yaayi Maodo seet mu ma su ma la teeloon na xam ma ne ko waaw mu ne ma lu ma jur wàlliw lay doon ma ne ko ñi nga jur ñi sax ay wàlliw lañ seet <laughs> mu ne lu ma xam naa ko waaye ndeysaan ci mujjug dundam mu aji fi màkka ah tabax fi jàkka wut cay rajo yi basan ba ñu yóbbu basang yi la génn àdduna san avant ñu koy lal ndeysaan loolu baax na de def leen ko nu def ko nu it waaw ndax ginnaaw arbitre suuf léegut nu góorgóorlu rek waaw jàpp ne daal ku ne danga naan at mii mooy sama sama kóor gu mujj ku nekk loolu lay wax da nga at mi mooy sama koor gu mujj ginnaaw mooy sama koor gu mujj nag tey laay wan yàlla tabarkàlla ne ne ne ne ne jàmbaar laa ci koor loolu ma waxoon ci addis ba la ñu wees woon ci euh, anas ibnu nadir ma ne woon yonent bi man day fekkiwuma badar ñu ne ko waaw mu ne ah ba beneen xare am su beneen xare amee danaa wan yàlla ne ragal ak yaafus taxutoon ma wuute badar ëw xare ba ñëw mu dugg ca di ko defante tabarkàlla ba mu yàgg mu ne mu ne saaba ba man de aljanna nag may xeeñ ndekete boobu ñu ngi koy bëgg a rey ñu jekk ko jam koy jam-jam dégg ko ay jaasi mu tëdd nelaw ca ca ca ca xare ba muy xaswatu Uhud kon nag mu nga noonu muy yéen muy man ñiy déglu ci biir réew mi bitim réew nun ñëpp ku ci ne daan koor gi moom xam naa mooy sama koor gu mujj ah waaw waaw loolu rek ngay wax bu la fekkaatee nga ne alhamdulilah rabbil na xam naa kon gii la ndax mo mo Mor Kase nee na eh, bis yi bis bu nekk ab bis ñëw waaye am na bis boo xam ne ca ngay faatu mu néew kenn mësu koo gis rek yàlla na yéex mbokk yi bunt boobu kon bunt ba am solo la bu ñu dundee ba ëllëg yàlla na dund ba ëllëg te weesu ko nu jëm koo door noo ko yéen muy baabul xafi alal ijtihaadi min al xayri fii awaaxiril umr waaw muy góor mu jigéen boo xasee àgg ci yenn at yi rek tabarkàlla góor-góor lu jot na jërë ngeen jëf ci ànd beeg si defem seen xaju ci biir réew mi ci bitim réew waaye jërë ngeen jëf ñi nga xam ne léeg-léeg ñu sotti wax ji jotle ko keneen xëy na bëggoon nañ mu gën a am njëriñ gën a fasaaxa waaw waaye daal lu jiw a jeexul jógu fa yàlla na yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen yàlla na yàlla defar seeni mbir dafar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.